alaan bikum bun abdallah jonn fa wax ne candidat la fa samp ndëndëm 2024 laaj réew mi allah lii yéene kaay moo ñu ko xamal ba pare fa caa yokk ne su ma njiit réew Macky Sall wóoloo ba jiital ma Benno Bokk Yaakaar jox ma seen kóolute faa leen di dig ne 2024 su boobaa ñun ñooy gàddu ndam li te sama candidature bi wax naa ko benn weer ci ginnaaw laas yéene kaay na ko hee bun abdallah sa doxalin bii jaarut yoon de ndax fa ngaa bëgg sëkkatal njiitiram Macky Sall ngir mu tànn la vox populi ne gaañi nag fi mu nii fa mel ni fa ñoo fañ doon lijjanti seen candidature yi ci suuf waaye fi mu nii fañ koo wax jibal ko ca kaw bi ci mujj mooy Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo ay farandoram fi mu nii ñi ngi ci réseaux sociaux yi di ko campagnal Amadou Ba tamit ay farandoram door nañ campagne bi seen bos xam nga nuñ ko tuddee nee na waaw turbine yéen Mbàkke waa xanaa ñii ñoom du ñoo fi waxoon njiitaram Macky Sall na ko jox nañ la carte blanche maanaam fag ñuy tànnal koo ñu tànnal doy nañu dafa ñuy ànd nekk ca ginnaawam ah, yaaw fa ngay xool fi mu nii ñoom ñëpp kàddu yooyu ñu waxoon génn nañ ku nekk fa wax na candidat la far force fra force doole mbaam yéene kaay bi na kon gars yi fa ñoo nanguwaat seen carte ba maanaam maye bopp ci làmmiñ Aly Ngouille Ndiaye moom xamul ci làq ca digg bala jaar fa wax a topp ci gannaaw kenn Mansour Faye moom fa wax candidat la njiit réew mi seeni farandoor fi mu toll ne fa ñuy campagne bëgg ñu jiital leen leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne Ousmane Sonko wér gi yaramam fa gën di doy waar ñaari fan yi démb ak bërki démb yëf ya fa gën a garaaw ba tax source a yéen kaay ne man faa ragal Ousmane Sonko xam nga fan la nar a dem réanimation maanaam diggante dund ak dee kenn ci jege ñaalam fa wax na la 14 ak le 15 août bii wér gi yaramam fa gën a doy waar te du ko bett mukk suñu waxee ne yóbbu nañ ko réa ndax fi mu toll ne fa faible du kattan du dara vox populi ne Hannibal Jim moom tamit ca geraw la la nekk comme Sonko mu toll nii wér-gu-yaramam fa gàlla góose garaaw loolu la def la ñu def ñenn ci société civile bi ak ay acteurs politiques mooy fa dajaloo taxawal ab kuréel goo xam ne xam nga nuñ ko tuddee yoonu péexte maanaam yoon yu ñu war a xaw ngir ñi bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso ak ña nga xam ne fañ leen a jàpp ndax politique tëj leen ci kaso gi regard yéen a kaay ne démb fa ñoo xamal lancement seen plateforme bi ni mel Vox Populi dëggal ko ne FRAPP ba nga xam ne Guy Marius moo ko jiite fa ñoo lëkkaloo ak waa F24 ak njaboot ak nga xam ne fa ñoo jàpp seen doom yi ndax politique tëj leen ci kaso gi fas yéene xeex nag ngir ñu bàyyi seeni doom yi ñu génn yaaw fa ngay xool fa ñoo fas yéene xamal ay doxu ñaxtu bir ndakaaru ak juróom ci département Sénégal yi yor yor yéene kaay moom fa jox kàddu maître Ousseynou Fall avocat Ousmane Sonko fa ñaawlu doxalinu Ismaïla Madior Fall jëriñ bi ñu dénk wàllug yoon yaaw seetal fa wax ne en tant ministre jëwriñ bu ñu dénk wàllug yoon naka la mënee taxaw di wax ci dossier boo xam ne mi ngi ci yoon atte guñ ko muy mbiru Ousmane Sonko yi dem sax banaan Sonko mënta nekk candidat 2024 ndax contumace baa ngi ca kawam ba léegi <laughs> xëyi leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na faas booy démb fa tàngoon jir ndaw dëkk ba fañ doon ñaxtu fa ñoo mer ba futtu fañ doon rajaxa tojate mboolem daluwaay boo xam ne nguur gi moo ko moom yaw fa ngay xool fa ñoo mer ndax fa wax ne seen doom ya nga xam ne fa duggoon ca gaal ga doon dem barsa wala barsàq bañ réeree fañ ko wax kilifa yi waaye fa gis ne fañ leen a négliger ñàkkal leen fayda ba ñu bëri sa ñoom faatu loolu leen fa xoote renfort ngir daal xam ca dëkk ba te mooy yéen a kaay ñu ko xamal le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne faas booy kay musiba naaru laay moo fa am seeni doom fa ñoo faatu ba pare ndaw ña doon yëngal turbine yéen a kaay mel ni ku naa man faa yërëm ndawu Sénégal nguur gi daal fa leen a seetaan abandonné ayow fa ngay xool ñàkk xëy ndaw ñi njiiti jëwri ne Amadou Ba xamul ci benn pexe fa ñoo tëlee ngir utal ndaw ñi xëy ñàkk xëy googu nag moo tax ñu bëgg uti xëy liggéey Europe ba tax ñuy ñàkk seen bakkan Ali Tandian jàngalekat ci université Gaston Berger ci Sud Quotidien fa xam le ne xeex wàllu Barça ak Barsàq gi wartoon a yemale rek ci jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir mi ak jëwriñ ju ñu dénk wàllu bitim réew déedéet fañ ko waroon gën a yaatal <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne mbootaayu réew Afrique yi fa ñoo xaayee CEDEAO na leen bu leen yóbbu ay soldat Niger naan yéen a ngi guerre ñun d'accorduñ ci toog waxtaan moo gën wal fa yéen a kaay na waaye man fay laajte lu tax Alassane Ouattara njiit réew bu Côte diwaar ak njiit réew bu Sénégal Macky Sall ñoom daal fa mel ni yëf yi fa ñoo xar ngir ñu yebal ay soldat Niger xeex la dépêche yéen a kaay ne waykat bu mag nekk Côte d'Ivoire Alpha Blondy moom wax ne d'accordut ci ñu yebal ay soldaar CEDEAO yi ca Niger ngir xeex ak militaire ya ndax xay la woo xam ne kenn du xam fu muy yem te loolu baaxul ci réew yi ñun fa ñoo xam lu ñu doy li doy waar di soxna soosu nga xam ne fa ñoo wax ne fa ba am juróom-ñeenti weer ba pare ñu sàcc ko mu dem mama kundul enquête yéen kaay nee na soxna sa gis nañ ko feeñ na waaye nee tuuteem ba nag moom kenn gisut ko ba tax yéen kaay bi ne waa ana nee na ay xibaar ndax gynécologue docteur ba ko visité xool ko la mu wax ak police yi gannaaw buñ ko dégloo <laughs> ah yëf yi fa tey xel de libération ne léegi faa leen di wax man li nga xam ne la maman kundul soxna si wax takk der yi ginnaaw bu mu feeñee bañ déglu ko ah, yaaw fa ngay xool fa leen a wax ne man fañ maa sàccoon ñeenti xale yu góor fañ maa dugal ci ab oto 4 x bu ñuul xay boor huit heures ci suba booba faa doon doxantu fudd samay tànk léegi ba ma duggee ci oto ba fañ maa pompe ab liquide rek faa sax lu ne fañ koy tabax pareegut léegi foofa laa xamee doom doom bu jigéen léegi ñoom fa ñoo nangu sama doom ju jigéen ji nee na tuuti ba ba pare sànni ma ca mbeddee dem nii la kaa bi demee libération ne xam na nag xibaar yu jib ne yoo yaay fa xam kenn ku ñu jàpp ca ña sàccoon xale bu jigéen bi ca sàngal kaam waaye xibaar boobu wérul de du dëgg amul te mbiru soxna sii fa bëri yu ci lëndëm de mhm. terewul nag takk dere ñoom xubbi nañ ci enquête ngir yëf yi gën a leer enquête yéen a kaay na moom bu jigéen kay takk dere fañ koo téye na ko mën dem yëf yi faaw ñu gën a koo dëgg-dëgg dëgg wala du dëgg ak ña bu fekkee lu a leer bi